من مي الخم خم يب جغلك لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء كم ذات العلوم يوي جحن لكنا بورك نغ فوق نغ فاي ما بربي موتا اقرا يونتي بي ورا ساكي بخي موتا booy déglu yenn yi def lay réeloo waaw jibril ñëw waaw ci mbokk yonent bi loolu mooy lan ku dey ni yonent beeg ni mu toll ci sunu borom yàlla yónni ku dey ni jibril nga xam ni réacteurs yi ma wax malaaka yi ci des ñeent lañ ca am moom juróom benni téeméer la ca am balaa wàcc si ci kaw suuf am na fu ko yàlla wuutal fo xamni fa lay demewu dindi réacteur yi ak limu àndal yépp ba soppaliku nit soog wàcc ci ci yonent bi est-ce que koku dina ñëw di mbokk yonent bi nan ko jàngal mu nan ko maana bi qaari yooyu dafa wi yoyu dafa xewi waaw maa ngi koo wax capitaine ba ci waxin boobu firawna doon waxeek Muusa alam nu rabbika fiina walidan ah wa labista fiina min umrika sinin ngay gis ba léegi am ñuy waxeek yow ci boobu ton te mooy li firawna doon wax Muusa ba mu jaaxle xamul xamul lu mu koy wax mu ni ko xanaa du sama kanam nga juddoo sama kanam nit juddu sa kanam tereewul mu raw la ah ci waawoon a ngi nii daaw ba ren ci jéem toppandoo Moustarchidine la ñu nekk ci gàmmu yi état bi li mu amoon yëpp jox na leen ko pour que ren gàmmu gi ñu jéem romb Moustarchidine mais duñ ñu dab abadan gis naa ko oustaz Alioune Sall sax xam naa dañ ko ndeysaan sonal rek pour mu teew waaye moom xam na fu mu bokk waaw waaw waaw gis naa ko it oustaz Modou euh, Fall moom it ma nga fa ca xaw ma xaw ma futur média la xaw ma waaw ñu tudd ko le miroir du Sénégal ma ne miroir bi nag jar na nettoyer tuuti waaw waaw pour wax la bu ko defee kenn ku ci nekk ak façon moo tax bi ñuy tàccu ñoom tey ci seen réception officielle di tàccu le ministre de l'intérieur ndax ni mu waxe man leen wax na feneen waaw yaa ngi nii toog yàgg délégation wax na ci seen kanam wax ci cofeel bu mu am ci man xaw ma dëgg la xam waaw wax ci daayire bi ni daayire bi amee discipline ak ni ñu organiser woo wax yooyu yëpp d'accord kenn ku ne yaa xam loo loo wax na bu dee dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow yaa xam waaw mais man gëm naa ni li nekk ci mbooloo mi benn bu nekk Sénégal bu ko am amul du du tiitaru du tiitaru de billaahi alazim waaw la ma góor gi waxoon ca foire ba ndax Moustapha xam nga li nga réussir ci roox ni man man fi ma toog xam naa ko loolu mooy wax bi moo tax bu ñu leen bëggee delloo ci ay détails du ma ko nangu waaw da ngeen di jël seen cap rek waaw bañ a changer li ngeen doon waaw loolooy tax daf may reeloo sax melentaan yi sax invité nañ leen waaw waaye gis nga sunu boroom ko am xam nga waa Makka dañ doon jéem a tooñ yonent bi naan eh moom yàllaam ji ñett rekk ko gëm waaw te mooy Muusa Isa ak moom ñoom ñetti ñooñu rekk ñoo gëm am ji sunu boroom wax yonent bi ni ko wax leen ni leen may yàlla yoo mu jeex maanaam pour won leen ñoom ak importance bu ñu jox seen bopp yàlla moo ko ñoo ko yoo la yemale parce que li mu daj ci yow pour bind ko moom la daj ci ñoom pour bind leen et puis c'est tout waaw moo tax inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha waaw waaw bu ko defee xam sa bopp dafay am solo yonent bi kon dañ ko wax na fay bor boru xam-xam yi ko yàlla jox nga xam ni aadama yi père de l'humanité mais kenn jox ko lu toll noonu waaw looloo tax nag bokk yee yëpp takku bokki iqra waaw ñoom ñëpp ñu ne ah sunu doomu ndey nag lañu ñu fal waaw te mooy iqra waaw kon nag nañu dem jàpp ca ndax bu amee ci sagaru njaam yi ñu am ci waaw ka njëkk a ñëw ni ko ah sa nuquri uka fala tansa xoolal loolu fala tansa lu tax parce que laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya walam mna lahu azma monico. adam ni yalla amna moo jiitu na lu mu waxoon ak moom ay recommandation yu mu ko joxoon waaye dem ba loo tax di ko dal dal ko ñu bëgg yow nag booy jàng nga def sa yitte ba li nga jàng doo ko fàtte te ay bokkam kat ay bokki iqra ñoo koy wax loolu sanaqri'uka falaa tansaa waaye ci turu borom bi lañ ko waxee mu jóge ca ñu indeeti beneen ci bokk yi